20h21h, c'est le Talrec Show. Avec Talrek sur Vibe Radio. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes, hein. donc les femmes à l'honneur. Moi, Tartaï, Fi Vibe Radio ngi watch ay rek ladies Ramga, ay ay donc euh, on va passer donc tout de suite on va démarrer bon on a démarré déjà avec ce magnifique titre de cannabis, c'est Café Fakeba donc une exclue de Vibe Radio hein. et il y aura tout ça qui sera là tout à l'heure pour euh, casser la baraque. C'est le Talrek Show avec Talrek sur Vibe Radio. ñaari yoon ma delloo la fukk fukk est-ce xam nga si li nga dugg am na lu muy nduru waxuñu ko xam nañ lu muy wund li ngay tegtil mu bala si biir moom daf ko dugg ma ko mettil li ngay foowee man mi maa ko tudd bii nag mën naa bàyyi mu jàll amul lu ma si ñàkk pour la mag ëpp la sagar déglu lu baax ma yoxuma bi lay c'est triste père dëkk si crise de guerre li nga dégg cri de mer dund nañ lii ak lee xam nañ luy galère mosuñu ñam salaire kii ba noppi naan da ngay gën a kële doomu raam nooy gisee suubu kaañu lekk doomu daa doomu raam damay màgg di gën a neex mais dooma laal doomu raam dund lu neex doo bëgg mu jeex doomu raam di nga dugg si néeg doo too mën a génn li may dund ñii moom la ñuy bëgg a am doomu raam yàgg naa dégg benn bu gën fukk tooga sa ruuxu xalaat bu baax yow balaa nga si dugg wax neex wër na la xam nga yorul dund amul lenn lu mu bëgg rek mooy fu muy fudd tey bul nangu wàcc tey ngir dund bëgg dëgg balaa nga ci gëna a dugg. C'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio. Mina la Vlalila aussi. fulaa gëm suñu bop sol ñu jot xam ni ñu doon téwul ñu ci gëna dund suñu art voilà ba wone suñu taar fi yeb ci ba fuñu tew ñu teg ni faar suñu karaw du feeñ waxuma lak leen neen nag ba yéen go duñu ci xaar du jekk pere góor du mèche ana jigéen ak wattu daabala demal nga wax sa gel bi cheveux naturel bi ci nit ku ñuul ki saaga la bàyyi nañu teg greffage di ci mat suñu âge gi dañu bëgg doon doon yu way tourné nañu yi page génn yi cash am liberté bëgg na ko muru way xam bopam valoriser lu mu doon dox sigi bañ di wone ay cëram ngir xërëm ci dërëm mu jël ërëm tekki sërëm ma tuna a yërëm waa këram Oh, Mina, oh, Mina, say Mina style. Mina, Mina, Mina, Mina style do Guinea. Okay, yeah, say Mina style. Mina, Mina, Mina style do Guinea. Mina, Mina, Mina, say Mina style. Mina, Mina. Mina Mina style du diine àdduna école la ku fi jànge bokkal ci ñi teel a yeewu xamee say classe dox ci li ngeen gëm réussite bi door a teewu ci solo di ci am am sëgëm fii xaj bu nekk xamee nañu xar kanamam déglu nañu borom xam-xam wax ba firiñu luy nit nit mooy garabam jaree nañ fa xam fu ñuy taxaw ak lu wees niñ ko mii nee ñu bàyyi ko fa ñëw wan leen leneen ngeen soog a gëm la milance taay la du diinee ku xam fu ñu jugee démb fu ñu yegg tey door a gal waxkat wax leen ci ñun du tee ñu dem li ñu gëm ci ak deeb ci la te ñu wane lu ñu mënee ba ku ci ne nangu ne jigéen mën na lu ne du tee mu jigéen ba su génnee am yéene takk fu bu ne dem ci fu ne moderne fashion swag li leer ba leer mooy nous sommes des africains suñu réalité li ñu am di ko bàkkoo wax dina yegg ci bépp maanakan mode de voile day bokk bay fausse la la leer ñu tapis rouge yi fépp la ñuy dugg di fa défilé ba yenn xeetu colli ñu fay ne bouge yi jigéen bu ci bëgg gis boppam jaru seetu xool ñu cër ngay valoriser di nga miser ci li lay déguiser ba buñ la gisee kenn du la xalaat terroriser mbina Mina, Mina, c'est Mina style. Mina, Mina, Mina, Mina style. Mina. Oh girl. Mina, Mina style. Mina, Mina, Mina style. Mina, Mina, c'est Mina style. Mina, Mina, Mina. Yes. C'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio. Eh, yeah Alors c'est terminé, hein, c'est terminé pour, euh, pour moi. <laughs> pour moi aujourd'hui c'est terminé parce que Tadric va reprendre sa place. Vraiment c'est pas gentil. Mais merci quand même de m'avoir donné l'opportunité d'être là dans Tadric Show. Hein, C'était super. Merci beaucoup à toutes ces braves femmes, hein, à toutes ces, euh, voilà, ces femmes de belle hein. Le match est terminé pour aujourd'hui. Hein. Je demaat encore xëccaat ay Je a defante fi ba minuit. aba aba aba gis nga <laughs> En tout cas, merci à Maman Faye, euh, donc merci à Mambousso, merci Siste merci Ndak, merci beaucoup à Siste Nash, merci à Siste Calista, merci beaucoup à tout ça, merci beaucoup à Mina Voilée, vraiment, merci beaucoup à vous toutes les femmes. Hein. Encore une bonne fête des femmes à vous. Hein. Et merci les gars, merci de nous avoir soutenus et continuez à nous soutenir. le nouveau son.